أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يهده فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki waa Xaybu TV ñoo leen di ziyaara bu baax di leen bégee di kontaan yéen ñëpp di nuyu nga xam ne moo nekk ci bopp muy Alaaji Abdul Aziz Dabaax Njaay fa tabarakallahu ak mbooleem membre yoo xam ne ñu ngi bàyyi xel kër gi te di bég si ñoom fa tabarakallahu ñu ñëw suñu darso biñ daan jàngale ndax ñu ngi doon jàngale ci euh, nga xam ne dafa araam ci doomu aadama alquran lim ko waaye yonent bi saa sallam wax ci waahid wax ci incha allah ñu tànnoon ci benn tiira muy laxdar yu ah, mu ci lim lim njàkke wa yoxrimu alayhi alkasiba wal xibatu wa namima bi keneen nag ñaar lañ jëloon ñaar yi nga xam ne moom lañ jëloon mooy alkasib wa yoxrimu alayhi alkasibu wal xibatu muy ñaar ñi nga xamante ni moo gën a garaaw mooy njàkk ñi ah, muy ah, li nga xam ne mooy jëw ak fen ndax fen la ci yàlla wax kéemaan la ndax kat innama yabtari kasiba allazina laa yuminuuna bi ayatillaahi waaw te it waylun yawma isin la mu kasi biina la waxoon kon ñu xam ne fen moom dara melut ni moom waaw ah, fen mooy bàkkaar boo xam ne ah, bàkkaar yi gën a mag ci la bokk waxoon nañ ko keroog jëw itam waxoon nañ ko waaw ah, wala yaxtub ba'dukum ba'dan an yuhibba ahadukum an yaqula llaahu li axiihi maa shay'an fakarihtumuuh wattaqullaaha inna llaaha tawwaabun rahiim loolu la alquran waxoon fa tabaarakallaahu bu ko defee kon dañuy continuer rek Euh, euh, fa ñuy continuer mooy euh, bi nga xamante ni moo ci topp mooy nam nammimat mooy rambaaj ah la ci yonent bi saa sallam waxoon rek doy na yonent bi saa sallam noonu na laa yadxulu jannata almamaama neen rambaaj du dugg aljana ah kon nag loo rek doyoon na sëkk sëkk sëkk si waxi rambaaj nga xam ne kon ah, alquran noonu lañ si wala tutixu kullu xalaafin ah, mahiinin amaasin masaain binna miimin mën naa ne la xëy na muxtaadul azima kon ñu xam ne kon rabaaj jikko ju bon a bon la te ki koy def moom bëggut mukk nit ñi ànd doon benn li alxuraan day waxata si moom bi hablillahi jamii'an rambaajkat bëggut mukk nit ñi jullit yëpp den def uh, waxta si moom bi hablillahi jamii'an ndax kat li sa yéene mooy ki ngay rambaaje daal boo ko rambaaje rek moom kan ko rambaaje diggante moom na yàqu uh, bu ko defee ba ci topp mooy wal kibru ak rëy uh, rëy moom itam doon boo bàkkaar boo xam ne bokk na ci bàkkaar yi gën a mag ci bàkkaar yi Euh, yonent bi moytu loon ñu ko lool ndax doomu aadama waru foog ne mukk mukk moo gën moroom ko loolu booy jàngoo ma maa faqi dañ lay wax na la nit araam na ci ab julit muy xool bëtu ngëneel jëmale ci keneen jàpp ne moom moo gën ñëpp ndax ki gën yàlla moo ko xam ah, euh, euh, nit ku nekk rek ay say mbir ndax bul bul tax bu la yàlla may leen a sant wala yàlla may la benn mbir rek nga jàpp ne yow yaa gën ñëpp li borom téeram boo xam rek laa xayra bu rujoole in kuntum kaasiban wala mu yekkun uh, mansuba ilal xarab noonu nee na yàlla lu def si nit koo xamante ni danga am nga xam-xam waaye amoo teggin ilmu bila adabit kàllaama mu dayinu nee na xam boo àndut ak teggin say wax day tay sànq waaye nee na jullit yàlla du def ci yiw it koo xam ne fenkat la donte dafa askanoo ci askanu arab sax yàlla du def ci moom yiw wala kaana mansuban ilal xarab donte dafa askanoo ci arab sax Euh, yàlla du def ci moom ngir te it ci gën yàlla moo ko xam yàlla moo ne laqad karamnaa banii aadama waxut kii waxut teral naa sant wi waxut teral naa xeet yi waxut teral naa ndole li gën nag moom nañ na xeer xeet yëpp nag arab moo ci gën ndax euh, li euh, si yaaj malik di indi ci bayutu xam boobu nga xam ne moom la indi ci xilaasu sax muy fal xurba xayrul naasi summa xayruhum wa xuraysuhum wa xayru xayru xayrihim nee na ki gën si nit ñi mooy Euh, waa euh, arab moo gën ci xeet yi ki gën ci arab yi mooy waa Quraysh ki gën ci Quraysh mooy yontu bi saa sallam kon ñu xam ne kon yontu bi kenn moom wal kibru ak rëy fa tabarakallahu moom itam rëy bokk na ci bàkkaar yi nga xam ne bàkkaar yi gën a mag ci la bokk wal xuj bu ak yéem jëf ndax julit boo xamante ni waa yontu bi noonu na bari na ku def sarax bari na ku def mbir ba pare fekk lañ ca def amoo ci lenn lu dul euh, coono rek noonu la bëri na ku woor ba ba bët bu ngoon jot bëriwoo ci xamul sa amoo ci lu dul xiif ak mar waaye bari na ku julli ba julli fekk xamoo ci lu dul entraînement parce que lu tax mooy doo ko def ci ngir yàlla lépp loo ko def rek danga koy def ci euh, euh, loo xamante ni yow nit ñi nañ la gis mbala ñu dégg la mbala ñu xam ne yaa ngi def nangam ndax euh, dafa bokk ci bàkkaar yoo xamante ni bàkkaar yu mag la moom itam muy rëy ak yéem jëf dégg nga ko yéem jëf moom. yénti saa sala moom itam wax na ci noonu na noonu la law lam gis ni boon laa xasibu aleykum maa huwa akbaru minu fooful xuj bu kon rëy ak jëf nga xam ne kon daanaka daanaka benn lañ laa yadxulu jannata man kaana fi qalbihi misqaala sarratin fil minal kibr yénti saa salam noonu la julit du dugg ajana doon wax kook julit boo xam ne am lu toll ni peppab sarra ci rëy ci xolam noonu la kooku du dugg àjjana kon nga xam ne ko rëy lu bon a bon la tabaarakallaahu li nga xam ne moom it la ca teg mooy yéem jëf moom it yëngu fa tabaarakallaahu li nga xamante nii moom la ci wax kon ñu xam ne jullit bàkkaar yi koy dugal safara dafa bëri lool waaye tiyaaba ji koy dugal aljana bëri na waaw li mag ñi daan wax nag nañ ne fexe bul fexe ba sa benn benn yi sa fukk fukk yi ëpp sa sa benn benn yi ëpp sa fukk fukk yi ndax gannaaw man jaa bil xasanaati falahu asru amsaalihaa man jaa bi sayyi'aati falaa yujzaa illaa mislihaa alxuraan nee na képp ku def benn yàlla ma fay la ko fukk yàlla na képp ku def fukk nag képp ku benn bu rafet ma ko fukk muy tiyaaba waaye képp ku def benn bu baa bu bon nag bu bon ba la lay bind rek du ma ci teg leneen te boo ko jéegaloo ma jéegal la ko kon li musiba la si ñoom xam ne salaat yi saaxoon na wala si ñoom biiraaxoon na way yëpp na xoon na maaxoon na fa tabaarakallaahu ah, ah, ah ñu xamale foofu darsu bi ndax ah, loolu na yi nga xam ne mooy yi fa araam ñett yu lañ jël tey muy bi nga xamante ni mooy ah, namaama alkibru waa xoj bu yi nga xam ne mooy rambaaj yontu saa salaam noonu rambaaj du dugg aljana mukk laa dina laay doxal janata namaama mukk laa dina waaye wal kibru it mu waxaat ci ne laay doxal janata man kaana fi qalbi misqaala sarratin min al kibru waaye yem jëf itam mu wax ci law lam yusnibu la xasiba alaykum maa huwa al akbaru minhu wal xoj bu wa tabaarakallaahu lépp loo xam ne jub na ci ngeen xam ne sunu borom moo dogal mu jub lépp loo xam ne dëng na ci ngeen xam ne ñun ñu koy wax ñun ñoo mat di ndax doomu aadama du mat wa tabaarakallaahu in turidu ilal islaam astataaha wa ma tawfiq ilal billaahi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu